topp tourisme yi di fanaan ci hôtel di ñu leen wutal ay kër koo xam ne kii dafay ami kër di fa dajale jigéen ngay tuddoo jullit di fa dajale sàngara di fa dajale joomu jaamur yi ñuy fa mooy yàlla mu ngi ci biir Ndakaaru kabaare yaa ngi fi hôtel yaa ngi fi naanukaay yaa ngi fi salon yi ñu defar mëbale ko nga defe na nit ñi dañ fay jaar di dokk seenu bokk borom kër ga ubbi kabaare ca biir di fa yóbbu sàngara di fa dajale doomi doomi nit ñu baax ñi ci wàllu góor ak jigéen ñu di fa mooy yàlla booleen dinaan naan sàngara gouvernement bi na wax ci loolu na toj yëpp na tëj yëpp ma ne du tontu li ni ñu waxee gouvernement bi noonu laa ko tàmbalee ci sama bopp ak yéen suñ fi jógee kenn ku ne taxawal ci sa kër bul sañsee sa doom mu dem ca baal ba bu ko yebalati mu dem ca Daniel Sorano bu ko yebal mu dem ca Damas ba bu ko bàyyi mu ànd ak ku warul àndal yéen tàmbali leen ci seen bopp kullukum ra'in wa kullukum rasulun an ra'iyatihi yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran yàlla ne lépp lu leen di tax a dem safara na ngeen ko wattaniku seen bopp ak seen i ñoñ yaa maa ngi nii sama sët su toogoon fii raam jëm ci furna bi ñaari yëf rek laa cay def fëkk ko delloo si wala ma sotti cam ndox wala ma këpp ko wala ma ko furna bi yóbbu feneen lu tax su jëmee ci mooy yàlla duma ci def noonu lu tax du ngeen def noonu ah su ngeen defoon noonu ba xale yi mucc ci safara bi mucc ci pax mi kon kon danañ mucc ci yàlla waaye déedéet kenn ku nekk ci ñun li neex ki la neex li neex li la li la neex li neex kii la neex waaye li neex yàlla kenn toppatu bu ñu defee ni lii ma wax gouvernement bi ci sama bopp laa ko jëkke ak yéen ak gouvernement bi ndax ñoo bokk suuf si te dañu war a waxante dëgg yàlla moom moom dëgg gouvernement bi daf fiy jóg Abdoul Aziz daf fiy jóg ñëpp dañ fiy jóg li Cheikh El Hadj Omarul Fouti radiallahu taala anhu wax moom rek am li kulli qatilin naihatun yanuxnahu وليس على دين المهيمن نائح لئن كان ما بالكف دين فكاسد وإن زيد راء بعد مد فر loolu nag am na lu lay taxawal di la jooyat sa xaq ba mu des diine mais su fekkee ne la nag li nekk ci loxo yi léegi mooy diine kon day diine lamb de yàqu na ñu ne ko mooy lan mu ne diinu la woon ci alalillahi diinul xaalis léegi nag dañ diin xam ngeen diinu de xam nga der gi dañ ko baat ci suuf amul yàgg ko xëcca noonu ngi fuñ ko maas lonk léegi nag ñu dindi maas ka lonk gi nuun googu ñu maas ko ñu tàll ca ko muy diina ah ñu dolli ci lii muy diina ñu dolli ci ra muy diina lu rek ma ne du dañ wax ne conférencier dafa war a wax yi yi nga xam ne na ngeen ko tuddee ba ordre du jour wala soxla wu nañ ko bopp wala da ngeen am lu ngeen ragal man nag képp koo xam ne kii da nga ragal ku wax dëgg bu ma woo ci sa mbir il faut ma wax ko il faut ma wax ko mooy dëgg te itam réew mi ñoo ko bokk wax naa benn kilifa de ko dañuy wax ne sëriñ si dañu leen contre wala diw ñoom dañu leen contre déedéet contre amul waaye nag lu waxuwul lu jëfuwul fus ko defe ña am fitu wax ko danañ ko wax te itam nit ak amul dara joy àgg ci dana ko def te ko wax defe kenn lu ko wax wala kenn du ma yellu kenn du ma biral mënul nekk kenn mucc julli foog ñu yellu ko maa ko biral ko tisbaar il foog ñu yellu timis euh, ñu yellu ba timis il waaw ñu biral ko ki amul daraja mooy timis dañuy nekk ci mbedd yi di wax rek ki nga xam ne yaakaare nañ ko dërëm wala ñu ne moo ñu raw ci yàlla il faut ñu yellu ko mooy tisbaar li mu def il faut ñu wax ko dañuy tëju ci néeg yi wax ko rek naka noonu lañ ci wàllu gouvernement bi liñ ci ñemee génne ñu génne ko liñ ci ñemewul ñu wax ci biir waaye il faut wax am il faut wax am ndax yàllaa ngi nii yoon ci yàlla Muusa ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wa ne ko may ma mu mucc ci nit ñi yàlla ne ko manuma ko awma ko man sax awma ko nee na ñu dama ñàkk nee na ñu dama nay nee ñu sama loxo dañ ko gëx waaye waxuñu dëgg man kay yadaahu kay mabsuutataani yunfiqu kayfa yasha dama koy guutee ni ma neex rek waaye man kay sama loxo ngi dem bàcc jëm fenn lépp su ko defee dim bi dimbale ñu ci loolu dimbale ñu ci affaire sëy yi dimbale ñu ci passé yi dimbale ñu ci suñu doom yi ñu të kenn mënatu leen yar dimbale ñu ci càngaay yu gàtt yi dimbale ñu ci xeesal yi ñu nit ñu dimbale leen ci jàkk yi ci wax waaye li koy sotal ñoom al muluku aswatullahi fi ardi ma ne ko benn dara doxul suñu diggante yow yaa ngi nii di préfet wala ngay sous préfet maa ngi toog nii di bokk yow ñu ngee waxtaan yaa ngi may fekk sama kër ma di la fekk kon kay dara amul dañu bëgg rek lu defar réew mi ak lu ko jëmee kanam ak xol yi nekk benn waaye ñu duñu contre gouvernement duñu bëreeg yàlla duñu xeex ak yàlla waaye nag yàlla bañ foog ñun la fi teg pour ñu wax yàlla daf leen sédd sédduñu yéen zahir la leen dégg baatin la ñu dégg yàllaa ngi nii amee sàmm de député bu boppam wa xalaqna min kulli shay'in zawjayn bu leen defee ne mukk député yi fii rek ñooy daje ci assemblée di wax son borom a ngi amee assemblée nationale am amee député am amee président amee vice président ila yawmina hada الى يومنا هذا الى يومنا هذا te itam bii fi nekk di ñu yéem kooko ko sam moo ko sam député yépp sëriñ sépp dañu àndandoo boole seen bopp bàyyi tariqa yi ñuy def arme di ko xeexe wattani koy bépp taalibe boo xam ne bii day dugg ci suñu diggante di ñu teqale loolu am na gouvernement bi na wattu ñi nga xam ne dañuy dem ci ñoom di leen boole ak ñi ngi dëkk réew mi te ñu yilif leen bëgg a yàq seen diggante loolu du jur lu baax lu baax ci wàllu sëriñ seeg talu bi lu baax ci wàllu gouvernement bi ñi muy yilif lu baax ci député nga xam ne ñoo bokk ñoo bokk assemblée bi bépp député boo xam ne taxaw nga ci assemblée ba gis loo war a wax nañ la bàyyi nga wax ko soo ko waxee ba noppi na ko gouvernement bi toppatoo la ca war mu def ko ca su dul dëgg ñu door wax ne du dëgg te itam ndegam yàlla ah, ah, ah, ah diine ba na àndee doon waxatuma la keneen xaadir bi sa toppee ci tijaan bi julli mu wér wala déet tijaan bi su toppee ci xaadir bi wala murid bi julli du wér ndax murid bi wala tijaan bi wala xaadir bi am na beneen fatiha bu dul fatihatul kitab ndax dafa amee beneen xibla dafa am beneen góor dafa am leneen am lu dul allahu akbar ak asalaamaaleykum dafa am leneen lu dul attaxiyaatu lillahi dafa am beneen alquran dafa am beneen yoneen kon nag fa fii ma tafarruqu jàqali ko lan la bakkat rek la taalu bi yi nekk suñu diggante nañu wut yàlla suñ ko mënul nañ ñu bàyyi ñu boole suñu bopp li ñu bëgg du am su fekkee ne taalib yi ñoo ko bëgg wala ñu bëggalul sëriñ si jàmm ñoo ko bëgg sëriñ si lànk nañu dañuy juboo dañuy juboo dara doxul suñ diggante ñun ñi ñu bokkalul insha allah ñi ñu bokkalul diine sax yaatal nañu leen wa in ahadu min min almushrikina stajaraka fa ajiru حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ ما منا يونت باغي ني والله من محمد عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام قريش لو ني نيو سي من موك لاج ما لو خامني لي لوي ديفار بوك لا اك دنا دنا دنا دنا خامني دانا دانا دانا دانا جوخ حرب دنا دانا ماغال حرب لودول دانا لين كو جوخ تي بوكو ني ديني ànd gi lool la il faut que ñu def ko ndax amuñ su fekkoon ne Sénégal gaal la te mooy suñu gaal sax suñu biyee ngi ci suñuy famille ngi ci ana naka nit du doxe ci ñun ba bëgg lu torpiller gaal bi الدين أو المجتمع أو, أو المملكة كالسفينة والسفينة إذا لم يكن لها قيم أو كان لها ولم يقم بمصالحها يوشك أن تغرق أو تنكسر إن فضب كابتن لنكور ولا سوك أمي تغوى جنوار تغوى جي قال قال لي معاذ الله دال دار توج ولا مو ديك رك تي لولو كين بغوكو سي سينيغال نيغي جان غوفرنمان بي سي لولو واخو نيو كو فورس dañu ko ñaan ndax moom la yàlla jox responsabilité bu day noonu al muluku aswatullahi fi ardi ñoo fi nekkal yàlla ci suuf si di yaram nañu dimbale yàlla dimbale ñu dimbale l'islam bi dimbale ñi nga xam ne amatuñu baat ci seen kër amatuñu baat ci seen jabar am na benn waay boo xam ne dana cité turam gaañu na xamoon ngeen ko muy fonctionnaire bu am diine bu yaru bu bëgg yàlla ñu di ko wax konaari wax xam ngeen lu dee digganteem ak jabaram lépp looy wax te nga xam ne dëggale tax di wax lépp bépp preuve boo xam ne bii soo ko andi dana tax ñu gëm loolu nga wax ko toog na bés ci këram parce que jabaram parce que mu dog ñu ne ko diggante kër jaamul fenn fu mu def mu toog di wér ñiy doxaan si ndaw si di ko romb fi mu toog loolu lu ko indi ñàkkaat ci wàttu lislaam rek te itam gouvernement bi bu ñu bañ ci ndax al fuqahaa ñépp daje nañu ne tuxdatu linnaasi aqdiyatun bi sababi ma ahdasu min al fujur caay caay gi na mu mel rek war nañu atte atte noonu ba ci wàcc ci safara ndax koo jox kaamil mu dóor koo ne kaay dem ci ba million ci bu mu waat waaye safara soo ko joxee nit ki ki ki nga xam su waatee taq rek Ah, ah, seet rek moo koy def te man fekke naa ko gis naa koo xam ne kii mar na soy ci sama kanam yàlla sawe ko ca Ndar yéen Saint-Louisien yi xam ngeen kër Lacoste ah xam ngeen ni amoon na boulanger bu baax yéen ñii ñëpp ak man daanañ fa jënd rokkoor ak ak couronne ak pant fekkee na waaw sëriñ Ousmane def la na ko ñeenti téeméeri nit lañ leen tuumaaloon dara amu ca am ñoo xam ne ñi man fekkee naa koo xam ne kii sama kanam lañ ko doon defee waaye dafa mu mujjee gis ne ma daal na ngeen ma dimbale ma fayal ma maa ko laaj Cheikh Ndiaye ñoom ñi ca kaw la kooka ni ma tege sama bët ci yéen laa ko tege ci jëmmam ja man mii dindi naa sama xaalis allah Cheikh dindi allah ji Ousmane dindi Abdourahmane Sow dama ba dindi ñu fayal ko am na mu ne nag kon da in fokk ñu war a sos ay atte yoo xam ne yi kemtalaayal fi kaccoor geeg caay-caay gi àgg léegi kër la kost googu nag dafa am benn naar bu gànnaar booba defe naa góor gi Ablaye booy fa la daan nekk ah am na daal ci ñoo xam ne yi daanañ fa naar booba la ñu am lu ñu ko jeeñal xaaj abdallah te doonu ca dara njëkk ñi ko defan ci biir mbooloo naar ba taxaw bu mu yàgg rek mu ne man man ngeen jeeñ loolu ñu ne wax fekk xem bi nañu matt mi ak këriñ li def ko fi mu mu fexe fa mu nekkoon rek ne cëpp ca biir safara wa ne su fekkee ne maa ko def yàlla na ma safara bi la ñu ngi seen kawar yi sëriñ abdallah yi naa bi dara ba mu toog fa ba am 15 minutes génn billahi su ko defee sàngara ci suñu ngir ku ci pap def ko ci kaasu sàngara dindi puso ba macc ko wann lor wa danañ la dóor sama lii na jënd war nañ la gétan xadd war na ci yow sangara ñeenti aaya rek ci wàcc benn bi yàlla ko tudd ba muy lim xéewal yi mu defal nit ñi mooy aay bi ma waxoon léegi wa inna lakum fi lanami la ibratan nasqikum ma fi butuni min bayni farsin wa damin labanan khalis wa wa min samarati nakhil wal adabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana ben ben bi yasalunaka an alxamri walmaysiri qul fihima ithmun kabirun wa manafiu linnas wa ithmuhuma akbaru min nafihima لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فرلا لعلكم تفلحون خمل بوغرنه إنما يريد الشيطان الله وحده ويد رسول الله إنما يريد الشيطان لمن ينمى لن أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ونقول لك ملأ فوق ليب من الديد ويصدكم عن ذكر الله ونقول لك فوق ليب من الديد وعن الصلاة مرين فعلتم منتهون ونقول انتهينا يا رب dana ñu la laaj loo xam ci sangara wuri waaye suñ la ko laajee xam ngeen ne yonent bi du wax moom yooyu yàlla ko naan suñ la laajee ne neel nangam kul waxal ne fihima nekk na ci sàngar ak wuri ismun bakkaar kabirun bu mag wa manafiu ak yi njariñ li naa si ñeel nit ñi am ñu ne comme que njariñan ci ñun dañ continuer am ñu ne comme que bakkaar bu mag la yàlla wax di moo ci nag ñun bàyyi nañu saisé nañu ñuy dem di dem ba ab daje am julli jot ñu jiital kenn mu war a julli timis jàng fatiha qul yaa ayyuhal kaafiruun la laaye ga ca laaye ca xam ngeen lu mu doon ci grammaire qul yaa ayyuhal kaafiruun la laa aabudu naf yoog naf yu kii laay naf yu la laa aabudu ma taabudun te it ci seen bopp xam naa bu wér ne la antum taabuduna ma aabud waaye la abudu ma ma ma abattum léegi kay waliya diin moom qul yaa ayyuhal kaafiruuna a'budu maa ta'buduuna li ngeen di jaamu rek lay jaam yàlla ne laa taqrabu salaata wa antum sukaara xatta taalamu wa antum tamit moom yéen sukaara ngeen di way nippu nippu xatta taalamu ba ngeen jàqee ma taquluuna ñu ne kon nag su waxtu julli jotee tey bu kenn naan nañ ko bàyyi ba julli ba nag <laughs> ndax balaa waxtu wi dellu si man ni te ni rees ah ñu dajaat ci béréb lekk seen yàpp naan seen sàngara ba xaañante am fa ñu yëkkati mbir ma yóbbu ko ci sallallahu alayhi wa sallama ne ko mbir mi daal jéggi na dayo léegi daal bayin lana fil xamri bayaanan shafiyan wala safiyan so yàlla yàlla ne jibril mu ne ko amu ne ko kaay dem fan demal ci sama soppi bi am na lu xew soo demee nga wax ko ne ko na jotal li nit ñi يا أيها الذين آمنوا ينجنك دائرة الإيمان لا يوخل إنما الخمر أم نيول والميسر أغوري أغيتي تقو الأسلام نيوم الأنصار لول لجنك أمن لك سبب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه تأت لينكو لعل يالا دك خمين لعلكم نخيين mbés la yéen na ngeen kiilu ngeen dem ajjanna ëllëg seytaane nammalu ci seen diggante lu dul dugal si noonu moo tax mu di leen naan loo gan noonu gën a rëy diw tudde na diw doom du moom ndaxam tudde na ko doom ndaxam jigéenam la takk ndaxam jigéenam la takk lu la dal mu taxaw ci am bés rek nga laxas der <laughs> der fa bant samp rek mu rocci ne gañe naa sa kër du danañ ko def ah gañe naa sa kër te ko gañe du ca génn daf ci bëgg a dëkk te sa njabootan ci te yéen a bokkoon lépp naka ko xarit di nekk bokkati ah kon kay adawatu dugg na ak bañante wuree ko indi ak sàngara te itam du yem foofu dana dox seen digganteeg tuddumaak di ma wéetal dana dox seen digganteeg julli moo faalantum ndax yéen mun taw na way daytalu ngeen ci lii ngeen nekk bàyyi sàngara bi kulliyati ñu ko itaay na yar kon nag sàngara kenn mënul jaar fenn foo ko mën a dagale nit ñi Sénégal dafa neex rek ku leen neex rek kaala ak jàngi ba ñëw ne yàlla jangina naa ba ñëw ya ma defal tawfiq ba ma xam li ma xam way yow lay jëk a takk nan la lay takk ñi nga jital na ñoy sa gay ci ñom lay dal ñom lay dal sudul wan bay abdallah ñass sudul wan la jabdu Kan sudul wan serigne Sëriñ sudul wan bay serigne touba sudul wan Haj Malik sen mbokk mi sudul wan Cheikh sidia kon ba tay rew mi weesu na fi mu ne ñooñu tardeel doxu su du woon ñoom su du woon ñoom su du woon ñoom ñun ñoom ñaan daan dara ñun dañu bëgg ku jàng ñaw mbokk min ansaari diinillaahi di dimbale diina yàlla ji waaye jàngi ba ñëw fab sa xam-xam di ko xeexe yàlla di ko xeexe nit yàlla yi yaag ña gaañu wax yaag yàlla wax siite ci alxuraan rek a moo di lan masaluhum ka masali lximeeri yaxmilu asfaaran mbaam amul ci sëfu wurus lu dul diisaay wala déet amu ko ca de diisaay rek la ca am kenn du ko ca jox benn seet bu bu tuuse ji loolu moo di le am nañu jàngi te ñëw taxaw diine ji suturaal mag ñu xormaal leen mag ñi li mu li ñu nekkoon su fekkee ne du dëgg kenn du man andi dara taxawal ko ca kanamu yàlla mu nekk dëgg ndax yonent bi jëfi mag ñi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko rabbaske ak sharia ak sunna si yonent bi jëfe wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahakum anu fantahu mag ñi loolu lañ fi dekke woon su dul woon ñoom diine ji du ak si ji mu ak si ñoo taxaw di kaññe fab seen lépp jébbal yàlla bàyyi adduna ak boppam wala ñi mu nekk ci seen loxo xëccoowuñu dara lu dul yàlla kenn ku ne fa nga nekkoon da fa nekkoon di leeral ba wuy ci sa borom ñun ñu lu lu ñuur ci soow mi ñoo ko ci def loolu yi bokk na ci waxtaan bi te it ko am looy tontu Abdoul Aziz demul fenn maa ngi fii ci Ndakaar maa nga tiwaawan lima wax lu ñëpp dégg na ko te moy mooy dëgg ku ci am loy constaté ko con contesté Abdou demul fen in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila Abdou mom dafa ne rek la la la la yabghi hukm al jahiliyati hukman أبا حكم الجاهلية يبغونا يلا نه ومن أحسن من الله حكما ما من كلمة جن رفت أتتيا نجم جم جن متولوا يلا نه إن تنازعتم سمين خطيو في شيء إن تلف نوم من الدرس فردوا جل لنك إلى الله أي إلى كتابه ورسوله إلى سنته ولا إلى أخوان العلماء ay nit suñu di xëccoo dañuy attewu ci cew yàlla ne yonent bi ne wala ulama yu ne ñooñu rek a fi nekk alkitaabu wa sunnatu wal ijma wal qiyas yooyu rek a fi nekk leneen nekkul kon ñi li gën daal nañu àndandoo gouvernement bi dimbale ko ci lu jëme Sénégal kanam ak lu tax nit ñi juboo gouvernement bi nañu dimbale ci lu tax suñu doom yi yem ci suñu loxo taxawu luñu dimbale ñu ci carte yi nga xam ni moom la ñuy def xale yi di mooy yàlla dox seen diggante tourisme yi fi ñëw di yàq suñu doom yi nañ ñu ci dimbale waxuñu bu kenn jàng lekkool waxuñu bu kenn liggéey waxuñu bu kenn def dara na ñëpp liggéey waaye na jàmm am nañ ju am kilifteef dox gouvernement bi yilif sëriñ si yilif seen i taalube borom kër yi ak bàyyi yilif seen i doom yilif seen jabar moo di dëgg loolu suñ ko defee rek yàlla defal li ñu bëgg kun li kama uridu akun laka kama turid lii rek laa doon wax ngeen baal ñoom léegi nag man ci sama bopp maa ñëw maa ngi ñaan mboolem jullit yi ma ma ne ndax gan du war a añ <laughs> ah du war a añ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه دو يونتي بكو اذا احب الله عبده كسر حوائج الناس اليه اذا احب الله عبده سلط عليه الضيف وذا الحاجه تي عبد صخله ولي الله صخله لو ген دون ديف غير جيم يالا يونتي بك بوكو خريط لغام داينا سي ين دار ني ген داي سما ماغ نيو فك سي لين دي لين واختانال دينا جوخ لين يالا لي xaalis lañu ñu bëgg ci jumaa ji sama yaakaar daal lay seen waaw ah, ah. ah? yaa moom waaw